bande animé ko mais ñu def lu extraordinaire dafay wone ne rek mm-hmm. euh, fa ñu jàngee mm-hmm. waaw moom la ñuy tari ndax Viviane était derrière Youssou ma jigéen du tey buy tari def lu mel nii ah mm-hmm. xel dafay dal. waaw xel day dal e je pense que ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo fa demoon au fait on a eu aussi ce même ressentiment donc comme ni nga ko waxee woon lan moo xewoon ci Suisse c' était la 91e e assemblée générale des banques suisses macha allah donc euh, banques yooyu dañuy dajale mu am na chaque année benn banque boo xamante ne moom mooy aye bi aye woon nag moom moo di BCV waaye li ñu ci gën a marqué nag une femme sénégalaise mariée à un Suisse monde bancaire là ci ni mu fonkee culture am ak li nga xamante ne moom moo di aadaam ak cosaanam elle a voulu faire connaître à ce euh, monde bancaire suisse lan mooy musique sénégalaise sur ce ci nañu invité ki nga xamante ne moom moo di Viviane Chidid mhm. li ñuy def rek dañuy dem xool les exploits que Viviane def foofu ci Suisse ñoo ngi fii ci aéroport Genève tombeek ak 91e assemblée générale bi dajale 24 banques yi nekk ci Suisse bi di BCV yebal na ay ndawam ci njiitalu madame Pausen Astou di doom ci suñu réew. ngir ñu teeru la reine du Jolof Band Viviane Chedid. Souhaitons la bienvenue en Suisse et plus particulièrement à pour l'événement que nous organisons, soit l'assemblée générale de la centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses. Nous accueillir notre diva internationale, Viviane Judith. Et a, nous sommes très honorés de sa présence ici lors de la 91e Assemblée générale des 24 euh, banques cantonales suisses. Et pour la première fois, nous avons une Sénégalaise, une Africaine. daje bi doon lu am solo ndax ay PDG ak directeurs généraux ba ci ay financiers ñooy daje ngir waxtaane koom-koomu seen réew ci noonee ngir allier utile ak agréable ci la soxna si di madame Pausen Astou Mbaye indil leen vivian Chidid ngir mu xamalel leen ak musique sénégalaise chaque année ah dañuy 24 euh, banques cantonales yi nekk Suisse dañuy de def seen assemblée générale ci biir assemblée boobu ci la ñuy euh, définir ak actionnaire banque yëpp patron banque yëpp c'est-à-dire assemblée est composée que de, PD, de PDG des banques, des différentes banques et des directeurs généraux des différentes banques. Et par la même occasion, joindre l'utile à l'agréable, les ben partie animation. Donc j'ai voulu par cette occasion amener ce monde suisse, ce monde bancaire à s'ouvrir à ma musique sénégalaise, à ma culture sénégalaise. D'où le choix s'est porté sur notre reine, notre diva, Viviane Chidit. élément bi donc vraiment je pense que Viviane a réussi une prouesse parce que comme ni ñu koy waxee ku xam surtout Suisse ils sont très cartésiens euh, très fermés mhm. comme ni ñu je pense que madame Pausen a réussi le pari euh, parce que bi ñu ko organisé son mari aussi monsieur Pausen euh, bunge ko ci ne ko on va proposer un spectacle africain pour proposer li nga xamante ne moom moo di suñu musique wala même suñu culture à cette gente bi nga xamante ne moom moo di ce monde bancaire mhm. et partie de Viviane je pense que ñoom ñëpp adopté nañ ko euh, euh, mm-hmm. xamante ne moom moo di Tama euh, donc a fait une prestation expliqué leen la nga xamante ne mu mel ni que Sénégal nekk na réew boo xamante ne macha allah donc li ñuy def rek mooy peut-être féliciter cette dame là parce que nee naa ko tey mun nañ jàpp ni sa fonkeel wala ni nga fonke sa ay racines tax na li nga xamante ne moom moo di culture sénégalaise nga wane ko foofu mm-hmm. et te loolu je me donc elle peut être ambassadeur ambassadrice euh, du Sénégal ci réew boobu moom moo di Suisse donc ñu koy félicité waaye di félicité waat bu baax Viviane te naan ni lii moom euh, miin nañ lu ne mel donc euh, c'était normal ñu gis def def na def na lu mu miin muy quatorze quatre e soirée de gala des banques suisses moom nag